dañ ko def nangam neewoon nañu benn weer li muy dugal ñaataat dugalu ko ba léegi te yàlla ko ci alquran man waxuma ko de wa qaalu laa tazarunna alihatakum wala na wuddan wala suwaan wala yaguuza wa yauuqa wa nasran wa qad adallu kasiran wala tazidi zalimina illa dalalan yàlla moo ne juróomi xërëm ya ñu amoon dañu ne ñoom duñ ko bàyyi mukk yàlla yónni tuufaan ci moom mbënn ñu alko yàlla na mimma xati aatihim ngir seen lu bon loolu ñu def di estate bi uxriqu la leen yàlla labalee ndax lab amul Dakar ba ay nit dee ci lab ba nee na lab ba bu jeexee wa uxriqu lakkeef leen lu mu ca teg wa maa min ah, min dunillaahi yàlla nee na du ñu am kenn ku leen dimbale ku dul yàlla te dañ koo tooñ stade bi fii ak jógu fi jàmm nekk dakaar du yomb de Sénégal xamuloon yëngu-yëngu li fay yëngu léegi kenn xamul lan la agression rek rey nañu diw rey nañu diw dem nañ ba dof bu jigéen tëdd ak moom wëlbate ko reyaat ko ci banlieue bi loolu mos na fee xew nañu ànd ak suñu sago maa ngi woon ci Thomas ah ba mu demee ci Oya mu ne tubaab yi duñu leen fay dara suñu maam yi dee nañ ci 39 45 ci 14 18 suñu tool yi yéen a ñu doon def ay surga forcé seen taax yu mag yëpp ci Europe suñuy ñàkk maam la fay leen ñu suñu wàll ngeen soog ñoo fayee ko waaye ndeysaan ci lañ ko defee coup d'état boobale te ci mbokkam lañ ko jaare kon yal nañu yàlla dimbale yaa rabbi euh, cheikh bàyyi xel ci àddina lool ba ñu weex na tàll waaye deret moo nekk ci ronam am na ku lay naan jàmm nga fanaan bu sagom la doo wàcc lal bi am na ku lay naan ndax nag yu ndaw yi ñëw nañu boo doon sagoom la nag yu mag yi sax des ci àll bi ko goonga de wan noo nay di ko goole wéete de goolee de wonnaam no sotoye gooleeje ngarti taw sotoye naw naydi fof heddino ladde kam ko ɗum yiɗ yiɗno am na ku lay laaj ndax selli yi jib si nañu bu doon sago la nag yu mag yi sax dañuy des àll kon bàyyil nit ñi na nga leen xool xool bu